يا أيها الذين وكجري ينغنا كوزا يا تي سيتان كون ان شاء الله يرما نكا دوما سي وقت بو يالا لي يرم نيب دي خيبال جولي ني تي الله خرا سانت ني الله ميغا خامني مو اراñani won jaamam ba ci wéru yi ñu nekk muy wéru rajab rajabul fard rajab sahru isra inde bi ci la yàlla rañaan yonent bi waaye raja xew-xew yu bari xaw na ci waaye xew-xew bi ci gën a màgg jam gën ci solo ci tukki ma yonent bi mooy rañaan yonent muhammad te rañaan ma la ci gën a màgg lu indil ko xeetam wi mooy julli kon ñu ngi sant yàlla ci mi ñu jox ci ay xeewal yu bari bari yu feeñ na muy ci gën a mag nag ci xeewal yi mooy julli seede di seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg lu may yàlla moom dong amul bokkaale ca nguuram ga di seede ne suñu sangam suñu yonentu Muhammad jaam ak yàlla la yonentu yàlla la di julleeg salmal isa ak yëpp yëpp yàlla nekk ci ki nga xam ne mooy borom Isra Mi'raj moom la yàlla ràññaa ñoon yéege ko ci kaw xaaba xaw say yàlla yàlla julli ci moom ak ñooñu ak saxaaba yu baax yooyu ak képp ku leen topp ci rafetal kër bis ci gannaaw loolu yéen nit ñi jàng yàlla yi ñi nit ci weer yu ñu yu rajab rajab ramadan mooy weeru xeetam seen rajo rajab nag mooy bu dikkee liñ ci sikra bi gën a mag gën cee ñu ko ci ci islam mooy rañaan bi yéen ci yàlla ak ak ci asamaan yi ila fawqa as-samaawaati wal ard ak it ko fàttali ko mooy anniversaire yu julli ndax ci julli ci weer woowu ba yonent ba demee la ko yàlla sëriñ bi ñuy wax julli mu juróom fukk ñu wàññi ko nekk juróom muy julli juróom moom it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla mayee mu yéege ko mu rañaane ko ba ci adratul qurs ci roxam ak jëmmam dafa may xeetam yi moom itam git bugg xeetu yonante bi tànni bi mu tànn ñoom mu may leen ñuy ñuy rañaan ci seen ak seen roxo bët bu nekk bët bu nekk ilmul malal ala ci julli juróom moo tax julli juróom julli bu ko ko rek bu set da nga da nga rañaan ci yoon bu kon julli weeru saja ma weeru julli ma la xamal sa julli lu màgg yàlla ñu wax ci alxuraan ne julli ci boppam dafay tere lu bon ak munkar faxsha nag mooy lu mooy ñaawteef boobu mooy aw njombuteef munkar mooy lépp lu bon kon soo fekkente ne ñu ngi julli ba pare te munkar jeexut ci ñun faxsha jeexut ñun kon nañ seen bopp ndax ñu ngi julli mu kon julli ah, julli jaam bu ko taxawee dëgg dëgg taxawee dootoo di mën a dootoo mën a def fàcca doo mën a def ñoom doo mën a def li mu war yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñi ci hadis boo xam ne bu wér la mooy yonent bi dafa ne bopp mbir mi mooy lislaam mooy nga dugg ci lislaam mooy tax ñi dugg mu ne waaye kenn li kenn luy téye lislaam nag mooy julli mu ne ñoo tooni njolloxtoon ya nag mooy jiyaat ci yoon yàlla mooy nga kër këri ci yoon yàlla bay diine yàlla ji taxaw képp koo xam ne taxaw nga rek di sonn moo xam jihaad nag ay façon yu bëri la ak forme yu bëri waaye jamono ju nekk jihaad ji lan laaj xam ci yi la xam ju doon yaa ngi sonn di kër kër yi ba diine yàlla ñu taxaw rek mooy njolloxtoon yàlla wax ci alquran wax ne na ngeen taxawal julli di nga yàlla fu muy diglee julli ci alquran uslubu alquran doo dégg mu ne doo dégg mukk mu ne sallu sallu fu mu ko wax rek ci julli ci yonent bi la waaye julli moom julli farata iqaamatu la wax da koy taxawal ndax julli leen boo ko teg taxawal leen julli yàlla fa ne nañ taxawal julli taxawal nag ah, ci waxi olof buñ ne diw samp na kër taxawal na kër moy la ngeen la laaj yëpp daf koy def te pass ba taxawaay ba mak taxawal julli moy ko koo julli da fay yaq da fay mën yaq programme fek julli mën a gën a sa programme taxawal ko góor julli nga xam programme bo nek julli du la ko tax a julli jëlalu lu ba ko da ngay nek ci programme ba pare rek saa yoo julli ko ko kooku ko kooku taxawalul julli dafa sant yàlla yàlla fa ne taxawal len julli taxawal julli mooy lépp loo nekk rek bu julli jotee nga ne ko fa ñëpp dem julli ji kooku mooy tax kooku mooy iqaamatu salaat kooku mooy benn leen julli te ngeen joxe asaka moo dund seen bopp ci aw yiw baat bi yiw leen firi waaye boo ko ci usuwal ko ci mooy lépp lu ngeen jëfal julli la ndax julli li baax la da ngeen ko fekk fa yàlla te yàlla xam na yàlla kuy gis na seen jëf yi maanaam yàlla gis na ni ngeen di jullee kenn ku nekk la ngay jullee yàlla gis na nañ koy julli moo tax wala ma taxalu na basir seen jëf yi ngeen jëf ci julli yàlla gis naa ko kon ah, kon na ngeen loolu la alaaji ko taxawal julli nag mooy nga koy joxe ca ponk ya matal ponk yi ba mat sunna ya ak farata ya ak melokaan yi ya ak waxtu ya am ay waxtoom koy ca waxtu wa ca waxtoom ya ca comme ni koy sunna yéen bi leerale da ngay julli comme ni yonent bi jangale julli moo ne woon moo julli woon le sallu kama raaytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gisse ma koy julli kon julli non la kon julli rek dañ koy fajar jang kon mu xala mu nek dafa wara taxaw ba xam ni ñi julle mën julli ñu bari ci ñun ñi ngi julli waye xam ñoo julli dañoo gis dañoo jug rek dañoo fone ne ak julli bi da ngay da ngay xool rek gis ñu jële da yomb na rek ben sa bàyyi julli nga topp ca toppandoo ko wala nga dem jàkk ja ilimaan jiite la nga topp ca doo xam loo war a mokkal war doo xam farataay julli doo xam sunnaay julli maanaam sonnewoo mbirum julli ah, comme ni nga sonnee sa mbiru àddina xam la jaxew kon julli moom itam yàlla wuutale waxtu comme ni ko seen bu yonte leeral yonte nee naa julli nag mooy kenul diine jii julli mooy kenul diine jii Ah, lu am kenn dafay daanu moo tax képp koo xam ne nee na la mi ngi ci islam la nekk doo ci diine diine ñuy wax l'islam ba pare nga gis muy sàggane di loolu koy doye daal loolu koy soofantal kooku xamal ne yoonu seytaane ak tur bu a am nag seytaane kon julli mooy gënul diine du taxaw diine mu tax taxaw mukk lu may ci julli diine islam yi ñu nekk bokk na ci ponk islam yi gën a màgg mu ne képp koo xam ne ne sàmmante nga julli sa dund gi yëpp Waktu waktu ko kooku de mooy ko texe ku nar a tonu wala bénéfice bi képp ku sànq julli nag mooy ko texee de ku nar a perte yàlla ñu yàlla julli leer la dama adama jullit bi boo xamante ne mi ngi julli farataam yi na ko na ko lislaam digalee na ko waree bu yomal xiyaamatee dafay nekk leer leer ak jaam bi garab bu mu borom boo dee yàlla tey fekk nga leer ak bi Malik Asari moo ko nettali sahaaba la mu ne yonent wax ne yonent wax na ne ne sallallahu wa sallam nee na laab mooy genn wala gëm yàlla da nga ne ak tuhóoru wala ak tahóoru mooy laab mu ne genn wàll ak gëm yàlla mu ne sant yàlla dafay feesal balance ba ne alhamdulilahi rek dafay feesal misaan yi misaan wala koy feesal balance mu ne boo waxee subhaanallahi walhamdulilahi ñaari baat lañ mu ne ñoom ñaar dañuy feesal wala dafay feesal wala ñoom ñaar dañuy feesal diggante asamaan ak suuf mooy wax baat mooy baaqiyaatu saalihaat mooy moom la alxuraan ne moo la moo la yàlla wax ne xayrun ba mu waxee al wal banuuna si loolu waxaat mu ne taarwaat ne mu ne waaye wal baaqiyaatu saalihaatu xayrun inda rabbika sawaaban xayrun bi saa waxee subhaanallahi walhamdulilahi rek yàlla biir ko ci tiyaaba loo xam ne dafay fees diggante asamaan ak suuf tiyaaba yi kenn xamul kenn xamul mu toll mu ëpp prix àddina yi ñu ut kon mu ne julli nag moom leer la julli leer la moo tax boo gis muy julli julli boo gis muy julli te amul leer rek kon julli yëgul dafay sëgg a sigg rek waaye julli yëgul bu bu bu bu rooxu julli ba bu ca rooxu génne rek day nekk mouvement sport boo xam ne day borom liggéey waaye julli ci da ngay julli tegalum di di teewlu di teewlu baat ya di torox di teewlu sa borom sa xol bi di ko di ko di ko yëg ak di julli su baba rek da ngay di xam leer mu ne julli leer la saraxe nak sarax nak moy preuve la lay la dafay nek qur'an mu ne muñ nak mom mom itam leer la baa nag tàngaay dafa jafe di muñ mu ne alquran nak mom ci julli ni ben mu nek awaka bu leer wala mu nek al awaka bu lay bu dee condamné ëllëg kon al ñun ñëpp alquran bépp jurit rek képp ko yàlla bind rek alquran benn mu ba léegi mu nekk saw lay ñaal la wu lay dugal aljanna wala mu nekk lay wu lay wu ne wu ne contour ba yóbbu la fa ca des ci yàlla musul alquran moo tax alquran ñu ngi noonu ba gën a alquran jullit bi bu yomal xiyaamatee yàlla na ko laaj lan mu amul relation ak alquran te alquran yow da nga jàppoon ne yow waroo ko jàng waroo ko jàngal say doom da nga war a toog rek boo amee mbokk mu faatu wala ba bëgg sa jikkat nga xaw ko daanu daal la jàngal la ko wàccee la ko génn nga ci loolu rek relation boobu dong nga am alxuraan moo la ko alxuraan waaye yow jaral jaralu la jàngoo ko jàngaloo ko say doom ah kon da ngay da nga ko toog da nga ñu barke moom naa ko rek su ko defee man sama doom ma jàngal leen leneen su boobaa it alxuraan da ngay contre yàlla faratal na julli ci bépp julit bépp julit boo xam ne mësoor la mu kallaf la xam na xel yalla farta na ci mom julli yàlla digal ñi fàttu ñu waxtu julli ci ko sam ci sàmmante julli juróom te bañ koo sagare bañ ko doyalal biram bañ doyale biram julli kel waru ko doyalal waruñ ci tayari ci joxe ko waruñoo sagare ci matale ko ndax julli bi yalla dafa sàkku ci mom mu joxe julli feek roxom gaangi ngi xànd ak jëmmam ji fekk sa roxom taxawal ci moom rek julli dafa la wax amul benn jamono ju lay julli wàccee amul menn mbir moo mën a def ba mu remplacer julli amul kon moo xam ne julli nga war nag moo xam feeg yaa ngi nooyi na la moo xam ku wér war na ku ku feebar ñoo joxem képp ah, ku man ko mën a defee war na koy ku nekk ci jàmm war na koy xare ku nekkul ci jàmm sax da ngaa war a julli ñëpp boo jàmm da war a julli boo nekkee jamono nga war a julli boo même ñi même booy ge boo nekkee sol soldaar yi geer sax julli war na wàccu leen war na ku sax mooy ku tukkiwul ak ku tukki yëpp julli war na war na góor war na jigéen lu ci ñaari melokaani jigéen rek lay wàcc nekk la koy wàcc mooy jigéen saa yu gisee baaxab jigéen mooy ngànt wala mu gis wala mu wasin gis dégg deret ci wasin fekk setul yooyu bu julli na ko fa war na ko war na ko julli la war ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mu def ñu bari ñi nga xam ne ñu waxtaan ngir juróom mbokk julli ñaan leen ci waaw man dugal ma foota gannaaw bi sant yàlla ñu ngi sant yàlla borom mbindeef yi di julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam moo xam ne mooy yonentu ak iman suñu sang muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam ak ñooñam ak sahaaba mi baax yooyu ak képp ku leen topp ñoo xam ne ñoo taxawaloon julli gën jàmm ak taxawee ak képp ku doon taxawal topp ci taxawal julli juróom ba kër bi ci taxaw gannaaw loolu jaami yàlla yi yàlla wax na ci alxuraan mu bi ne wattu leen sangeen sàmm ànd ak julli juróom ak julli bu gën ko julli bu gën ga boo te nañ ci ñee tàpp sax julli mën a xaw daal da nga julli julli yépp kon nga bokk ci dugg ci biir wa salaatul muslim mu tekkee ne wa qoomu lillaahi qaanitiin bu ngeen taxaw nag julli na ngeen taxaw ci ngir yàlla te ngeen toroxlu ngeen toroxlu ci kaw yàlla bu ngeen bëggee julli ngeen toroxlu yàlla ci benn julli ngeen ngeen ñu di ko topp bu ngeen demee sax ba am ragal ngeen di xeex ngeen julli fekk yéen nga dox wala ngeen war ci wala ngeen war ci wala di julli ci kaw fas wala di ngeen dox kooku julli xaala bu la fekk da ngay julli ngeen am secret na am qualité na ngeen tudd yàlla comme ni mu leen ko jàngale maanaam na ngeen julli comme ni ko ci lam li mu leen xamalee ne xamatul ndax bu leen yàlla ndax xamu leen ñuy jullee yàlla moo leen ko xamal ci ram yéen kon kon na leen ko yàlla xamalee li ngeen xamatul baat bi wax moom yàlla ne xaafisu baatam xifsu la yëpp xaafisu la mu xaafasatu na ngeen waxtu julli yi yi léegi mu ne aqimu taxawal leen mu ne na ngeen waxtu mu ne xaafisu boobu baat waxtu leen xitaab bi yàlla nga ko jubale ci mukallaf yépp moo xam ay góor lañ wala ay jigéen lañ yaa yàlla ci boppam ci laajin ba digle ñu taxawal julli juróom ci waxtoom ya ci mboolem sartam ya mu di ci yaay nag mooy nga saxoo ko war nga gis nit yàlla yi ñun dañoo fonk julli doo fekk benn nit yàlla boo xam mos naa sàggari julli dafa dafa fonk julli ndax ñu ko rey ci sang-sang ba mooy yónni yàlla moom nga xam ne moo ne woon ci ci julli ci lay yalla yàlla di won ci daa ñoom seetlu xolam kon julli doonal ci mus ci ci julli ci ak julli bi ci wépp melokaan ci melokaan bi mo xam dafa febar wala dafa wér julli ko wacc di wacc kel amul loy nek yi ba julli wacc la amul lu mën a julli amul ku la mën a julli julli kenn ko gadul kenn kenn ko yaa gàddu julli ko comme ni nga xam kenn du gadul bakkar kenn ji loolu moo tax julli loolu ko wutale jaamu yàlla ci des lu ma wi wax ci hatte ku bay julli ku bay julli ngi tay wala bay julli ngi luma xam bay julli rek ñu ne julli bokk na ci kenn ci ponk ci fondement ngi islam yi du dagan kenn huutu ci kenn du daganit remplacer ko ci am joxe alal amul sa boy buñ boy joxe ngir mu wacc julli wacc la wala loy wala sa wala lu koy liggéeyal wala lu koy liggéeyal ko julli wacc la donte yonent yàlla Muhammad la sax boo ko liggéey taxul julli wàcc kon duñ ko waxante la duñ ko waxante yaram loolu moo tax ñu gis ne borom xam-xam ñu ne képp koo xam ne dafa bàyyi julli ki nga xam ne mooy kilifa jullit ñi war na koo jàpp ci mbugal lu gën a métti mbokk yi ba nga xam ne julli nii la ko yàlla wàccee ñun daraja yi am am ci ci ak ci lislaam lislaam taral na lool ay daan ci képp koo xam ne da julli mu tëkku ñi nga xam ne dañuy sànq dañuy sànq julli ci suratu Maryam la ko wax ah, suratu Kahf moom ah, waxam ci suratu Maryam kaafa yaa insa mu ne ñi nga xam ne dañuy sànq julli yàlla wax ci alxuraan ne gannaaw ba amoon na baax ñu fi nekkoon seen gannaaw ay xalaf yu bon ay ñu bon wuute wuutu ñu baax ñu fi nekk te kan mu ne fa xalafa min ba'dihim xalfun mu wuuti sax gannaaw ñu baax ñooñu xalfun wuute ay ay xalifa yi won ay wuutaa yi won luy seen malaka liñ jëkka def ci mbon mooy dañoo sank julli top banex ku sank julli juróom rek ku sank julli banex ba ngay top te ko top banex ba ngay am moo tax mu ne addaaw salata sank nañ julli top banex ba kan ya yalla ne fa sawfa fa qayyan xaw dajek xayyan danañ dajeeg dañ dugg pour ñuy wax xay safara nga xam mo moo gën safara safara koy musul dañ mu ne dañ dugg safara waaye comme que yàlla moom borom yërmande la ci alquran bu tëj bunt bi te fekk yaa ngi dund mu ne ilaa man taaba mu seet looy koo xam ne da ngaa tuub nag ba nga tuubee nga gëm yàlla ya jëf-jëf ju baax mooy taxawal julli mu ne ñooñu de danañ dugg aljanna te du ngeen bañ a seen bakkaar kon ba léegi julli boo xam ne daa nga wattu julli juróom sànq sax ku ko daa leen góorgóorlu te tuub de maintenant boo tuubee yàlla ya nangu yàlla ko tuub mu la ko duwi na jëf ci bu baax iman wala ko amalu saalih da nga dugg aljanna te ñëwal bu mi bokk na ci melokaani sànq julli nag waxu ñi di julli de ñi di julli ñoom xéefar lañ seen acte jeex na leer na ci alquran képp ku di julli rek xéefar la sa acte mooy xéefar kufru nga kooku moom islam waxu ak yow dara waaye ñi sànq ni ñi sànq julli mooy ñi koy yéexee ñi koy tardeel ñi nga xam ba dañuy julli tusubaar tàkkusaan passé wala bala ñu julli bala ñu takkusaan timis jot bala ñu julli timis jeexee fajar xar wala bërsët wala ñu bala ñu julli suba jant ba fenk ñoo ñoo ñu bay yéexe ñoo ñoo sànk julli moo tax mu ne ñi nga xam dañuy yéexe julli ca waxtoom ya ndax alquran wax ne inna salata kaanat ala almuminina kitaban mawqutan julli mii kat nekk na te musta dañ ci war a jullit ñi bu tal ko wax di ko di faral suñu waxtaan farata suñu ak sama waxtu la farata la soo xam ne yàlla ko dafa di ko bëgg waxtu kon doo ko tënk yow du saa sa sàkk sa waxtu doo toog doo toog comme ñax ma dara toog ba mu ta ba mu la tàpp sant jot na ma ne ma di julli ko du a kooku moo sànq julli waaye kuñu julli moom xéefar la kooku moom amul wax amul diman ma ñëw yàlla wax ci alquran it fa waylul musalliina allaziina an salaatihim saahuun am na ñuy wax loolu naan julli am na ñenn ci leen di jamono ci ñi nga xam ne jànguñu diine jànguñu arab ci ñun jamono ñu ci bëgg a wax jël aay ji bu ko sofal jullikat yi déedéet naan nanga ma jël julli wala ñu naan la sikkar agam julli déedéet kuy sikkar te doo julli sa sikkar si baax kon julli moo ngay julli pare soo ko yàlla sa ko nangu fii yàlla fa waylu lil musallin saha an isaat bu ko saha fi salaati moy ñi nga xamni julli jullikat yi nga xamni dañuy sàggani seen julli buñ julle tay bo liggéey duñ julli dañu sàggani seen julli sa anhu bokk nag sahabi fii xam nga boo déggul arab dama di alquran bokk nak yalla bañu ku jum ci bir julli julli jamañ dara nekk de da koy def nak sagane julli la bañ mu ne ma julli jullikat yi jullikat yi nga xamne an an sa saa dañuy sagane seen julli ya buñ julle tay bo liggéey duñ julli wala buñ julle bañu julli tok ba juróom ci tegale juróom wax tegale ko ñu dañu sagal julli ñooñu ñoo ñooñu ñoo ñooñu la alquran ñu rëbb waaye julli ku koy taxawal julli juróom moom mënoo am julli juróom la ko remplacé la moom la ko remplacé kon yonent indil ñu ko kon yonent fay wax sahaaba yi si kala leen ngeen bi bu ngeen xar kon julli ci boppam moo moo jiitu te sikkal soo am bi ñu borom sikkalu day wax rek kon li ñuy tëjee xutba bi nag mbokk jullit ñu leen di fàttali di fàttali suñu bopp ci événement boo xam ne dafay ñëw ci weer wi nga xam ne sëriñ bi moo waxoon nañ ko waxaale suñu mbokk yi ñu tuddee ànd sàmm jikko yi jaaju bi ñu passé sëriñ bi waxoon nañ yoon bi salaa sallam matal na makaarimul axlaax sàmm ko nag umu bi la war suñu euh, Ibrahima Ka waxoon na ko oustaz al xatibul ala waxoon na ko ci aj ma ne la jul ñetti ponk yu jëm islam ak alquran ak sunna ak umma bi umma bi nak gëna bu yent bi indi le makaari wala akhlaq umma bi ñu wara taxaw sam ko mbolo mo tuddu ci teeso and sam sàmm jikko yi nag maam ci yow ñu ngi ci yow jullit ñëpp képp koy asale ci ko bok mbolo mo dañu am benn rassemblement bu ñu wara def ñaar fukki fan ci wëru février bii ca Dakar ci place de la nation donc place de l'Ancien ci ñes nation bi ci lañ bokk ñun ci ñun ñëpp ci nation bi lañ bokk imam yeeg ñu baax yëpp ñu bu dem daa sama ko pour wane ni pour contre benn agenda agenda boo xam ne ko indi jox ko état yi ñu signé ko muy asada bi tuddee NCBT asada boobu nag li muy doxal mooy góor jigéen ñi moom bu ngeen gisee suñu ministère yi Sénégal ya. bu ci nekk am na saar saar laaj ne bu ñu jàng tubaab xamuñ ba xamuñ ni ñu firi saar foofa nag ci lañ dugal niveau niveau yooyu ñuy wax niveau droit yooyu mooy góor jigéen ñi dañuy bëgg am droit yoo xam ne te am nañ ci assemblée ba am nañ ay député am nañ ay député yoo xam ne ñoo leen fa nekkal am nañ ci boo demee ministre loolu boo dem santé am nañ fa am nañ ci justice ba ñooñu nag seen seen seen assemblée daal loolu ñuy toll ñuy doxal bés bu ñu ko doxalee ba teg ko ci ay loxo yu yar benn imam bu mën a xutba bu am sañ-sañ xutba nga ñu góor jigéen ba pare da koy ji police kon nag asanda boobu moo tax ànd sàmm jikko yi ñoom Babacar bu ko yooyu yàlla yàlla yokk leen wér ñu taxaw pour ne asan ne état bi na dakk ñu def benn la pour ne nañ criminaliser homosexualité ci réew mi comme que criminalisé wal wala ba tax criminalisé li ñu tuddee viol te mi ngi woon ci code mi ngi woon ci code pénal bi waaye ñoo ko daan yi ñu loolu lañ loolu lañ jaay président président yi wax ay ndax sax nag yoo xam ne tegu ko fenn kon loolu moo ci nekk ànd sàmm jikko yi nag ñu ngi woote ci bés boobu jullit ñépp combat bi nee naa du combat jullit ñi rek combat sénégalais yépp la ndax ba mu koy jiite ci bopp xalifa xalifa xalifa général yi dafa gën a jiite sëñ Muntaxa sëñ Babacar Mbakke sëñ Mahi Niass sëñ Cheikh Ndiaye yàlla yàlla yokku leen wér ak mboolem Thiel ak Laayeen ak ba ci jàngu bi ba ci ñi gëmul yàlla sax waa sacré bi ñoom ñëpp seen siyaare yàlla bi te nag dafa am lu wax yéen jàng tubaab ngeen ngeen ngeen jubbantiku di moo ñu mel dañ ne peuple bi ñooy si warante du si warante si ngeen wax maanaam peuple bi ñooy chef kon président du chef ndax président suñu surga la kon liñ bëgg lu ñu war a defal suñ bras général suñ surga la sa sama sama sama si tuut ak si tuut ak sa tuut yi keneen lañ dajale jox ko jël ko ci avion jël ko ci lu nekk kon ki suñu service la war a dox waaye ñun waruñoo dox jaay waaw kon li peuple bi bëgg te bu fekkee ne ñoo xam ne démocratie lañu am démocratie peuple mooy souveraineté peuple bi lii sàkkuteefu peuple bi la ci député yi nga xam ne suñu fekkee ne neen suñu député la ñoo leen fal assemblée kon lii lañ bëgg kon ñi ngi leen di ñoom ci oo daje boobu képp ku mën a dem na nga dem Dakar képp ku mënut a tamit na nga leen jàppale ci sa poos ba mën a am nga jajale ko jox leen kon am nañ ay am na ay jox nañ benn numéro téléphone boo xam ne moo am na web am na am na orange mu ne képp ku leen bëgg a jox dara boo ko jëlee danaa ko danaa ko danaa ko bari ku ma jox la ko 77 864 91 71 ñu ngi daje boobu nag ñu ngi ci woo képp kuy Sénégalais rek te dëkk ci réew mi Dakar département yëpp 45 département lañ ko ñu daje fa dañoo bëgg département Kaolack bu leen kenn ëppalee ci ñuy dem dañu luy ay bus yëpp ñu dem Dakar plateau de sécurité pour pour ñaawlu li nga xam ne moom la assemblée bi récité projet loolu la ñu sàkkoon ndax asanda bii kat ñëpp ko ko war a xeex ku war xeex bu ëllëg war da ngay mën xeex yàlla loolu defoon ca góor jigéen bañ fi nga Sénégal te nag ñu góorgóorlu ànd sax ñu koy ñun taalibe yi ñu limaan yi nañ fexe ba président bi di gën a fexe ba am suñuy candidat ci daara bi ndax xokkal ma xokkal ma kat dama xokkal sama bopp de ndax koo koo xam ne ko ko defee ñu ñu ñu campagne ñu jëm tam xam ne loolu moo ci nekk képp ku a a dem boo amee loo leen mën a jox parce que ko ñuy dem tabarkeloo ko je allah nabi ɗon tiyago ñi wahno rabbana adina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina asaban nar على من ينام كما سأل سورة الجلال والقرآن سيدي يا رقيب كل خير فينا وكل عيب وعيد فينا لا عمل أعطته من أهل ولفة التي أمن سفلي إلى وبيتك تعيف السهال منها ولا أنت خير راهب مكن مكن صملا أو المسلمين ولا تهوينا لأيدي العالمين بتاج التحليل وإن غلط بن جعفر أن يجاهد ابن الإعلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون يا